ne déposé nañ mais parrainage bi du euh, nu mu tuddati Ousmane Sonko du bokk. billaahi wallaahi Ousmane Sonko rek laa bëgg mais bu bokkee ci euh, bu bokkee ci euh, élection yii bu bokkee ci élection yi lu jaañee ñi raxasumaa ko naan parce que ñii li mu jàpp Buur Sall jëlul troisième mandat joxe ko ci malgré waa Benno jëluñ seen troisième mandat bàyyi ko ci malgré. nit ñi dañ leen sonal xëxëtal leen ba mu bàyyi troisième mandat mu bàyyi troisième mandat xawma kuy bokk mais Ousmane Sonko du bokk te bakkanam la ci teg ku ci teg sa bakkan nag ak ku ci tegul sa bakkan nooy def ba Ousmane Sonko bokk ci réew mii man gisuma ko sama aqulaay taalaa rek lay wax ak li ma gëm parce que nag lu mu bon bon borom xel lañ te dañuy jàngat dañuy gis mais li ma wax nii dara du ko dindi mbindeef guy dund ci àdduna fexe ba Ousmane Sonko bokk gëw ko gisuma ko damay wax rek ñii muy waa buur sàll gëm naa ne ngeen baal ma ci kàddu gi bu yàlla wàccoon sax ne ko Ousmane Sonko day bokk daf koy ne rey ma mais du bokk pour wane ne seen taxawaay léegi nag ñii détermination bi ñu am ak mu jaral leen lépp seen bakkan ba Ousmane Sonko du bokk ñun ñu sàggane caaxaane ba Ousmane Sonko nekk seen loxo ba presque tey ñaata jour presque weer ak lu tegal Ousmane Sonko nekk seen loxo ñun ñëpp ñu toog seetaan ko te mu waxoon ne ne population sénégalaise rek ñoo ma mën a jàppale ba nga xam ne ne fi ma taxaw duma fa taxawee bu ma bokkul population bi la. bu ma nekkee population bi la ñun ñëpp ñu seetaan ko ba ñu téye ko ba jàpp ko ba taxawal ko ñun ñëpp nag di wëraat nag di xalaat ne ne dina bokk ma dégg tamit ay kilifa si nekkoon ex Pastef ñu ne carrément dinañ def euh, appel parce que dañ ko génnee ci liste électorale yi billaahi wallahi sama gëm-gëm lay wax buñ demee ci yoon ba yoon dugalaat Ousmane Sonko ma tag ma teggi sama ma ma ma dagg sama kurus du nekk bu ñu sonn gis nga àdduna lu mënta nekk du nekk lu war a nekk rek mooy nekk te ñun les patriotes nañ gëm yàlla gis nga gëm yàlla ci jaamu yàlla la bokk te Ousmane Sonko waxoon na ko du benn yoon du ñaar yoon fi ñu toll nii xeex politique la xeexu xel la xeexu gis-gis la mais bu ñu sàgganee fii laa koy waxee de vaar leen ma c'était c'est le premier octobre 2023 vaar leen ma bu ngeen sàgganee ba lii ñuy caaxaan ci parrainage bi leneen ak leneen caaxaan ba nga xam ne yeneen politiciens yi ñi ci génn ñu leen di tere bi ñu génn waa Bennoo dinañ forcer seen candidat fexe ba sàcc élection yi ba gañe élection yi te kenn du ci mën dara li may wax wax leen maa ngi koy wax publiquement parce que taxawaay bi jaraloon Sénégalais yi Ousmane Sonko kenn du ko jàpp wala Ousmane Sonko seen bakkan lañ ci teg gisuma kum jaral ci réew mi gars yi di rey seen bopp wala gaa yi di taxawal seen bopp amul kon bu ñu demee ba ki nga ki jaraloon nit ñi di rey seen bopp mu jaraloon kenn ku nekk di sonn ci président Ousmane Sonko di def lu nekk te terewul liñ doon wax yëpp dafa am waxuma laa keneen ndax dina jaral nit ñi ñuy buuse wala def net bu ñu sàgganee ci lii ñu jëm amuñ ci fulla amuñ ci fayda danañ gañewaat élection yi te duñ ci mën dara ba gañe bi nag du ci carte ju ci da dañuy sàcc élection yi te duñ ci mën dara parce que doole gi ñuy jaay Ousmane Sonko ba du bokk doole gi ñuy jaay ba génnee ko warutul génn doole jooju la ñuy jaayaat ne gañe nañ réew mi gañe nañ def lu ñu war a def te kenn du ci mën dara li ciy dëgg nag man dinaa sama gis-gis la sama bëgg du sama bëgg-bëgg mais sama gis-gis nag dara du ko dindi ñu ne def nañu recours fi ñuy def recours bu dee conseil bu mu mënti doon euh, juri euh, euh, judiciaire bu mu mënti doon ña fay àtte bu ñu motee fukk bu ñeent nangoo ne Ousmane Sonko dina duggaat ci liste yi juróom benn buñ ne du duggaat kon du duggaat muy yoon yii muy justice am na ñu gëm yàlla ñu ragal yàlla ñu ci nekk te mooy dëgg mais li ñuy gëm gëm gëm yàlla man mënuma jàpp ne fukk yi dinañ opposé pour Ousmane Sonko ñu dugalaat ko ci élection yi bu ñu sonn gis nga direction parti bi wala direction ex parti Pastef ak bureau ba li ñuy def nii yëpp c'est bien c'est bien boo lu rafet la lu war la mais bu ñu sonn Ousmane Sonko kuy fexe ba mu bokk ci politique bii ci 2024 lu ma bett ci àdduna lay doon bëgguma ko nag Sonko rek laa bëgg te moom laa bëgg a jàppale mais ñii lim leen jaral ba mu ba ñu bàyyi seen troisième mandat lim leen jaral ak tooxi doona euh, milliards yi ñu jël ci réew mi ak combine yi ci am ñu fexe ba Ousmane Sonko du bokk duñ ko nangu parce que comme li ñuy wax Ousmane Sonko bu bokkee midi lépp leer loolu nag kenn du ko xam ak ñoom seen tooxi doon ak seen musiba yu ñu def di sàggan ba Ousmane Sonko du bokk seen bakkan lañ ci teg seen bakkan lañ ci teg du fexe ba ñu ba mu bokk bu ñu sonn kon parrainage yi ñu jëm ñu ne nañ xaar fii ak 10 jours ñu xaar conseil suprême xaw ma ban lu ñu mënti xaar ci man tardé nañ course de vitesse lañ nekk li may wax nag.